déggoo la dox ci diggante médiature bu Sénégal ak bu Cap-Vert li tax a jóg bile xaatim déggoo mooy fexe ba ñi bàyyeekoo ci ñaari réew yooyu yi mën di woyal ay waxtaan ak médiateuru réew yi nga xam ne foofu lañu nekk. tey jii umpalewu leen ni sénégalais yi nekk ci Cap-Vert bëri na te li leen fa yóbbu mooy migration irrégulière ba ñu am ay jafe-jafe ak justice mu ngi dox li mu war ñoom ñoo koy saisir. donc ñi nekk fii ci Sénégal aussi nekk ay ressortissants capverdiens su ñu amee jafe-jafe war nañoo ñëw ci médiateur mu dox loolu. ci noonu sax am na benn disposition bu nekk ci bile protocole di xamle ne capverdiens yi nekk fii ci Sénégal mën na ñëw saisir médiateur bi ci lépp lu jëm ci service public bu Sénégal homologue capverdien bi di ko dëggal. dans cet protocole il y a précisément ci biir bi la protocole doomi Cap-Vert yi di yeewoo biir Sénégal euh, mën nañoo amal ay ñaxtu ci wetu médiateur bi. au Sénégal peut chercher, te sax am na ñenn ci ñoom ñi ko jot a def. des questions qu'ils peuvent voir avec les médiateur ñaari réew yi am na nañu yaakaar ne bi la lëkkaloo dina gën a ñoŋal ak ak yelleefu askanu ñaari réew yi fexe it ba bi la lëkkaloo dox ci ñaari daluwaay yi gën a ñoŋal relation yi dox ci réewu Sénégal ak cap